أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى يوم نتوي السماء كت- كتيء س- سجل لل- للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla doolu ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam bis penc yàlla ñu ci yàlla boole ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ñu taxoo ragal yàlla fu ñu munte nekk te ñu xam ne ci loolu rek la ñu mën a amee teranga àdduna ak alaaxira suñu xutba àjjuma daanaka mu ngi doon doxantu rek ci li nga xamante ne nii moom mooy bésu penc nekk bés boo xamante ne bés bu raglu la waaye nekk bés boo xam ne bés bu gudd la ndax bu ñu nee bés bu gudd mooy bés boo xamante ne duréem dafay tolloog cinquante mille ans te amul kenn koo xam ne ci mindaafoon yàlla bind dund na li nga xam ne mooy cinquante mille ans ci dundam rek nga xamante ne dafay juddu ba génn àdduna benn fanu yàlla yowmal xiyaam nekk li nga xamante ne mooy cinquante mille ans kon nekk na fan boo xamante ne bés boobu bés bu gudd lay doon mu nekk bés boo xamante ne yàlla ci suuf la ñuy àttee comme niñ ko waxee woon ci ajuma bi passé suuf boo xamante ne suuf bu vierge lay nekk dañuy jëlee ci suuf yi yóbbu ñu ci beneen suuf nu mu ñu yóbboo nag moom moo ko xam moom yàlla duñ ci dugg waaye dinañ jëlee ci suuf bi ñu dekkee ndax fii la ñuy dekkee suuf bi ñu ñu denc suñu bàmmeel dañuy buqee koo génn mu yóbbu ñu ci beneen suuf attañ mu nekk suuf boo xamante ne jant bi dañ koy wàccee wàccee ko benn wàccee boo xam ne dafay tiim li nga xam ne mooy suñu yuuri ñii seen commencé ñaq seen ñaq di yegg selon bàkkaar yi nga xam ne moom lañu def ñii seen ñaq dafay dem ba toll li nga xamante ne mooy seen cheville mooy dojoor yi ñii seen ñaq di dem ba li nga xam ne mooy seen hanche yi waaye ñii dem ba seen ñaq di yegg fi nga xam ne mooy seen gémmiñ ba ñu nuru sax luy lab seen biir ñaq waaye selon li nga xam ne mooy degré bàkkaar bi nga xam ne moom lañ def bés boobu raglu na ragal boo xamante ne comme niñ ko waxee doomu aadama bi buy ñëw du sol yére du sol yére waaye dafay nekk koo xamante ne tamit ni ko yàlla bindee woon avant muy xaraf noonu lay ñëwee maanaam dara du soppeeku si moom lu dul xaraf boobu noonu ñu ñu ñu ñu defoon ci moom mooy delluwaat mel nu mu meloon ñu baal ñu si terme bi noonu lay doomu aadama bi di di di dekkee suñu yaay Aïcha laaj yonent bi saa salaam sax ne ko ak yàlla nu mu fiiree góor ak jigéen jaxasoo ci anam boo xamante ne daanaka kenn du sol yére yonent bi ne ko bu boobaa nit ki dina tal leneen loolu di xool naan sol naa yére wala soluma yére ndax bés la boo xam ne mooy bés bu raglu boo xam ne doomu aadama bi dina jaaxle bu jaaxle bu musta jaaxle ci noonu la ñuy nekkee ci métit boo xam ne ñun ñëpp suñu xel day nekk ci yàlla na ñëw àtte ñu mu jeex benn yoon ndax taxawaay bi yàgg na métti na tàng na ku ci nekk yaa ngi si situation bu métti su ko defee nag ku nekk yaa ngi am solution fan laa war a dem mun a am wallu boo xam ne su ma fa demee ya yàlla kooku bu waxee ak yàlla yàlla dina bàyyi nit ñi jiital seen dem dem ci suñu maam aadama biñ demee suñu maam aadama moom dafa ne nafsi nafsi maanaam sama bopp sama bopp ndax lan yàlla tere woon na ko garab bi te yaakaar na ne yàlla mun na ko xoolee loolu ba bu ko ñaanee du du du ko nangu kon li mu tal mooy nan lay def ba la yoog yàlla ci li nga xamante ne moom mooy garab boobu ko yàlla tere woon mu lekk ko ñu jóge ci aadam ni si yonent yàlla nuux yonent yàlla nuux tamit ne leen nafsi nafsi sama bopp sama bopp ñu jóge ci li nga xamante ne mooy yonent yàlla nuux dem ci ki nga xam ne mooy yonent yàlla ibrahim moom tam mu ne leen nafsi nafsi sama bopp sama bopp ndax ñoom ñëpp ku ci nekk am nga bàkkaar boo xam ne def nga ko yonte yàlla nuux yàlla daf ko ne tabaxal tabaxal gaal mu nekk fa di poser ay question poser ay question poser ay question yoo xamante ne te mënoon na jug rek dem defari gaal bi comme yàlla jox na ko ndigal ci loolu la ragalee ne bu demee ci yàlla dina am loo xamante ne dina ko bloqué bu ko ñaanee intervention yàlla day bañ yonte yàlla ibrahim tamit ñun ñëpp xam nañu dafa jëloon xërëm yi ñu doon bokkaale yëpp toj leen bàyyi xërëm bu mag bi biñ ñëwee laaj ko ndax yaa ko toj mu ne du man wax boobu mu waxtee fekk moom moo ko toj mu ne amaana yàlla mën na ko topp ci loolu moo tax du daal di dem ci kii ñu ñëw ci yont yàlla Moussa yont yàlla Moussa tamit ne leen naf si naf sam bopp laa tal ndax daanaka mos naa rey nit mooy histoire am boobu nga xamante ne amoon na ci ñaari xeetam bi doon xeex ak ñooñu waa Firawna te mu ñëw di leen àtte ba far dóor ko waa jaaree fa faatu ñu ñëw ci yont yàlla Isa moom dafa ne naf si naf si waaye indiwul benn li nga xamante ne ni mooy def boo xam ne def na ko parce que moom deful dara mais dañ koo tuumaal dañ koo tuumaal doomu yàlla waaye du moom moo sabab lu loolu moo tax moom indiwul benn lu muy jooy waaye xam na ne loolu nekk na gàcce si diggante ak boroomam biñ ko diinte moom mooy doomu yàlla te mënul dem def li nga xam ne mooy intervention boobu noonu biñ ñëwee ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo jub jël li nga xam te mooy intervention boobu moo tax bokk na ci yonent saa sallam lu mu jàngale mooy bu ngeen déggee noddukat bi du nodd na ngeen ma ñaanal li nga xamante ne moom mooy wasila ndax wasila boobu noonu kenn kese lañ koy jox yow mal xiyaam te nee na moom njortu na ne moom lañ koy jox boo xoolee moom tong ci yonent yi yàlla yónni moom moo denc ñaanu mbugalu xeetam te dencal daf ko dencal xeetam ba yomal xiyam yonent yëpp ku ci nekk boo wootee nga xamante ne am nga jafe-jafe ak sa xeet da ngay mujj ñaan yàlla yàlla wàccee li nga xam ne mooy mbugal ci xeet boobu noonu mais yonent yàlla Muhammad moom mooy ki nga xam ne moo yërëm xeetam ñaan boobu noonu mu réservé ko pour li nga xamante ne moom mooy xeetam yomal xiyam kon moom mooy jug ñëw bu jugee ñëw lu muy njëkk def mooy commencé du sujjóot ko julli yàlla ne ko tey fii julli amul julli fii la yem julli koo xam ne xas na génn àdduna pare na ci julli mu ne ko fii julli amu fi ñaanal ma may la rammul ma rammul la ci la yàlla commencé di wàccee li nga xam ne mooy dangar bi ndax yàlla da doon mer mer boo xam ne incha allah da koy mer mer boo xam ne mus koo mer moom borom bi subhanahu wa taala ndax jamono boobu noonu ñi fi taxawoon di woote ne ay buur lañu ñi fi taxawoon di woote ne dañu am doole di nootaate ñi fi taxawoon nangam jour boobu la leen di woo ñoom ñëpp kenn par kenn di bàkku ne leen ana ngeen ana yéen yéen ñi fi nekkoon ci kaw suuf di jaay ne yéen a am ana yéen ñi fi nekkoon ci kaw suuf di jaay ne ay buur ngeen am ngeen ay doole jug leen su fekkente ne mun ngeen a jug yàlla mer mer boo xam ne du ko mës a mer te loolu mooy li gën a garaaw ci bésu penc su ko defee loolu moo koy xaw a giifal mu commencé def li nga xam ne moom mooy àtte jaami yow man xiyaam nit ko du ñëw teg tànkam séq beneen tànk bi loolu ne question yi dinañ ko ko laaj ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mooy alal bi nga yore woon fan nga ko jëlee ndax da nga ñaqoon am ko wala ndax da nga triandé woon am ko boobu mooy première question bu fekkonte ne foofu nit ki bu si réussir sax dama liggéey ñaq ko ñu ne ko jàllal waaye loolu tax mu jàll dañ koy laaj ne ko alal bi fan nga ko ferewaat foo ko dugalaat léeg-léeg nga gis koo xam ne day liggéey liggéey ba sonn lu mel ni liggéey kale yaa nga nekk ci bâtiment ak bâtiment nu mu méttee nga gagné sa salaire mu leew la donc waale sekk tëgg nga dem jël xaalis boobu fayee ko li nga xam ne baal ñu si terme ndax bëgguñu sax di tudd tur waaye dañuy jox exemple rek dem tëgg conseiller am nga jël xaalis boobu dem fayee ko tigi soirée yow man xiyam xaalis boobu nga fere dañ lay laaj fan nga ko dugal ndax def nga ko ci lu neex yàlla kon ñaari question yi mooy am kii moom dina at mi ci foo ko jëlee waaye am na koo xam ne bu ñu ko laajee foo ko jëlee moom leewul du jàll sax deuxième question bi ndax fi mu ko jëlee baaxul loolu mooy wane ne ne alal boo ko jëlee fu baaxul même boo ko defee ci lu baax da nga ciy perte doo ci am dara képp koo xam ne dem na jouer PMI gañ fa xaalis tabax ko jàkk par exemple du am dara ci jàkk jooju mu tabax parce que fi alal bi cosaanoo baaxul keneen nag bu jullee ci jàkk ji day am julli waaye moom mi ko tabax amu ci benn yool ndax alal bi fu mu cosaanoo moom moo baaxul kon moom question boobu rek lañ koy laaj fan nga jëlee alal bi su baaxul du yegg si deuxième question bi mais ki nga xam ne moom liggéeykat la ñafe na ñaqam la am ñaqam boobu dinañ ko laaj fan nga ko ferewaat dinañ la laaj sa ndaw bi fan nga ko passé ndaw bi la yàlla jox te buñ nee ndaw ci islam ba 40 ans ndaw la digg ndaw dëgg moom sax mooy 40 ans yàlla dina la laaj sa ndaw bi ci lan nga ko jeexal te tey jii ñun ndaw ñi lu ñu gën a yittewoo moom mooy topp àdduna boo waxee jaamul yàlla lan la ñuy wax nañ ko bàyyee mag ñi. te fekk na yàlla jamono bi ngay am ndaw foofu la la soxla te loolu sax dina feeñ ci deuxième partie bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy xutbawee kon nit ki na xam ne yow ma la xiyam du seqi benn jeego loolu dinañ ko laaj alalam fan la ko jëlee fan la ko jëlee fan la ko dugal waaye tam dinañ ko laaj tamit ak ndawam ci lan la ko jeexaloon kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci boppam ñu bàyyi xel ci loolu bu baax alal nañ koy fàggoo fu lew waaye tamit nañ koy dugal fu neex yàlla suñu ndaw tamit nañu fexee nañ ko jox yàlla su ko defee yàlla téyel ñu ci li nga xam ne suñu mag la ndaw bu jaamoo yàlla su nekkee mag yàlla moo koy téyel li nga xam ne mooy magam la mooy yu bëri jafe-jafe mag di ko am ci jafe-jafe da ngay gis ne du feeñ ci moom da nga koy gis day nekk benn mag boo xam ne day rafet waaye day nekk màgget boo màgget boo xamante ne day dëgër ba sax da lay yéem kii nu mu dëgëree parce que lan moo tax mooy ndawam yëpp daf koo consacré ci li nga xam ne moom mooy yàlla yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla nañu yàlla saxal ci njub aquli qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum lisaal muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala doomu ndey mbokk jullit ñi suñu diine bàyyiwul dara yonent yàlla muhammad yàlla daf koo jaarale alaxira mu gis fa ay mbir yoo xamante ne xeetam moom moo tax yàlla jaarale ko foofu pour bu ñëwee mu avertir leen waaye bu ñëwee tam mu bégal leen yonent bi saa salaam wax nañu lépp loo xamante ne dina xew alaxira pour nañ ko préparer fii bu dee xéewal la naka la ñuy def ci suñu kéemtalaay kàttan góorgóorlu bu mën a am xéewal yooyu waaye tam bu dee naqar la aussi tamit naka la ñuy def ba mën a moytandiku ba bañ a dem ci li nga xam ne mooy naqar yooyu yow man xiyaam comme ni ñu ko waxee naaj bi dina tàng nit ñi dinañ nekk seen seen seen seen i ñaq ba ñii di ci lap waaye dina am juróom-ñaar yoo xamante ne bés boobu ker munu fa am du dul ker boo xamante ne yàlla moom moo ko moomal boppam te ker bi mu ngi jóge ci ron arsul rahman siis bi yàlla di toog ronam foofu moom moo am ker te yàlla moom mooy xool ñii teg leen foofu ñoom ñu am ker moo tax ñu naan yow ma laa zillu illaa zillu maanaam bés la boo xam ne ker amul ku dul ki yàlla defal ker yonent bi ne am na juróom-ñaar yoo xamante ne ñoom bu ñu ñëwee dañuy dañuy ñëw ci ker dañuy tàbbi ci ker googu aka nekk juróom-ñaar yu tumuranke nag suñu jamono kon nañ ko xool ñu bàyyi ci xel bu baax a baax benn par benn ñu seetantal ko bi njëkk moom mooy ki nga xamante ne mooy al imaamul aadil mooy juge bi nga xamante ne wala njiit boo xamante ne dafa maanu bu ñu nee maanu nag moom mooy koo xamante ne dafay jub day atte ci li neex yàlla waaye li muy atte tamit daf koy xam yoon saa salaam nee na ñetti juge moom moo am benn bi àjjana la jëm ñaari safara lañ jëm bu njëkk bi mooy juge bi nga xamante ne amul benn xam-xam ci li muy atte mu koy atte amul ci benn xam-xam mu koy atte yoon tamit nee na kooku safara lay dem ñaareelu juge mooy ki nga xamante ne am na xam-xam ci li muy atte waaye bakkenam la atte mooy maanaam soit dañ koo ger wala dañ koo corrompre wala sax dañ koo teg sax pression pour na àttee noo xamante ne du yoon mu àttee loo xam ne du yoon jox ki nga xam ne moo am dëgg toor kooku tam yoon saa salaam nee na safara la jëm ñetteel mooy ki nga xamante ne moom xam na dëgg waaye dëgg boobu la àtteewoo amul lu ko ciy munti fekk bu dee dañ koy rey sax nañ ko rey mooy ni ko yàlla waxee alxuraan waxal dëgg doonte dañ lay rey noonu lay nekkee ba ñu rey ko sax mais teewul dëgg googu lay àtte yowmal xiyaam àjjana lay am te ñu xam ne loolu mooy mucc fii lu fi waaye dund dund dund dund du romb mille ans wala bu ko rombee du bëri amatul sax suñu génération kuy romb deux cent ans amatul suñu génération bi kon dara bu mu ñu jaral àdduna bi nañ ñu rey ci dëgg ñu dem àjjana boo xamante ne buñ fa duggee amul génn waaye nekk juge boo xamante ne dañ lay corrompre nga nga àttee loo xamante ne nii tey ay boo xam ne bu ñëwee du dal ci bopp borom comme li ko yàlla waxee wattaku fitnatun laa tusiibanna lazina zalamu minkum xaasa nga nga dugg ci benn fitna boo xamante ne xamoo ay boobu ci kan la yem daal di yàq li nga xamante ne moom mooy àdduna wala nga taal li nga xam ne moom mooy dëkk juge boobu noonu war nañu wax ak moom war na xoolaat digganteem ak boroomam mu ragal yàlla atte yow man xiyam juge bu jub dafay bokk ci ker bi nga xamante ne moom lay yàlla di keral du am naaj du gis jant boobu ñuy wax ne day wàcc ba fii du ko gis moom day ñëw rek jékki-jékki ñu ne ko kaay dugg àjjana léegi heure dugg jot na mu ne ah man de doon naa dégg ne dañuy taxaw ci jant boo xam ne day taxaw ñi di ñaq ñi nàngam waaye jant xanaa dañoo yeggul ci loolu gaa yee koy tontu ñi ko fekkee ñoo koy tontu ne ko loolu romb nañ ko bu yàgg yow yàlla moom moo la préserver ci loolu kon kooku mooy ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk ki al imaamul aadil ñaareel bi moom mooy ki nga xamante ne benn góor la boo xamante ne wala jigéen xolam dafa takkoog li nga xamante moom mooy jàkk waaye bu ñu rawee la rawatina góor xolam dafa takkoog jàkk moom balaa moo am lu ko neex jàkk ja la jullee bu génnee suba xelam yëpp même bu nekkee ci liggéey bi xelam yëpp mu ngi ci tisbaar ban heure war a nekk mu programme ko ci programmation fexe jege benn jàkk boo xam ne jege na ko fi mu nekk moom julleem yëpp jàkk la koy jullee dafa takkook jàkk yitteem yëpp jàkk la day xool leen suñu jàkk yi nu mu ràppee te yow man xëy am nag bu mu tàngee dañ lay keral ndax lan mooy sa xool dafa takkook jàkk tey nga ñëw julli ci jàkk tisbaar trois personnes quatre personnes benn sàppe bi sax mënul mat ñu nekk ay jullit benn koñ boo xamante ne benn jàkk moo fa nekk presque lu mat plus de cent kër ñu ngi ci koñ boobu jàkk ji mënul fees parce que lan moo tax mooy suñu xol yi moom moo taxawatul li nga xam ne mooy jàkk ndaw wala wala wala mag ñi moo waxatuñ ko ndax bu ñu nee jàkka ja mag ñi rek la ñu fay fekk ndaw ñi kenn gisatu leen ci jàkka ji te fekk na ñoom ñoo waroon dooleel loolu feesal li nga xam ne moom mooy jàkka ji kon ndaw bi nga xam ne xolam taxoon na jàkk kooku dafay bokk ci ñi nga xamante ne moom la ñuy keral yow man xiyaam kon nañu góorgóorlu ci jàkka yi fu ñu munti nekk fu ñu munti taxaw jàkka yi bëri na amuñu lay nañu fexe xam heure bi heure bi la ñuy julli naa fexe lu ma munti def ma rabaatru ba jege jàkka jooju mu julli parce que loo munti bàyyi bu dee ñëwee nga bàyyi ko looy bañ a bàyyi ne xaaral ma nekk ci xaaral ma nekk ci buy dee ñëw nga koy bàyyi duñ fi nekk di calculer di nangam yow yaay yow yow kay la sa mbir di taxaw mais keneen la ñuy jël moom mooy yeggale loolu ah léegi yow boo xamee loolu sa dund kan mooy dox sa diggante ak yow julli bi nga xamante ne boo ñëwee yowmal xiyaam moom la ñuy njëkk xool ci yow amul koo xamante ne teg na tànkam yowmal xiyaam lu dul julleem lañ njëkk xool awalu xisaab as sola su baaxee ñu ne duñu xool benn jëfam dañ koy naan demal réussir at mi nga d'office su baaxul ñu ne xool leen ay jëfam te yàlla ku mu xool suñu suñuy jëf doo ci génn yonent bi ñu ko bi ñu ko waxee dañ ko ne même yow sax mu ne même man du ma ci génn kon nañu fexe ñu taxoo suñu xol yi ak li nga xam ne moom mooy jàkk ñetteel bi moom mooy ki nga xamante ne daanaka am na ndaw soo xam ne dafa yànj maanaam rafet mel nu ko ni jigéen bu rafet war a mel yor alal yor yëpp sàkk ko pour na mooy ak moom li nga xam ne moom mooy yàlla mu ne déedéet du ma ko def damaa ragal yàlla mu nekk lu jafe suñu jamono bii léegi njaaloo dafa tasaaroo calculé tuñu sax xool tuñu sax ndax kii jigéen bu am la wala jigéen bu ñàkk la xam nga tey xoola jigéen boo xam ne buur la ku mel ne yonte yàlla Yuusuf Zulayxa nekkoon jabaru buur jabaru Aziz Misr am alal am yëpp am am taar woo ko ci néeg boo xam ne sept porte moo fa nekk mënoon na fa def lu nekk waaye mu xool digganteem ak boroomam ne dama ragal yàlla ba li ko ciy fekk fekk ko ci kon massa koo xamante ne jigéen bu melul noonu moom moo ko topp kon ki nga xamante ne jigéen fexe na pour na jéem a mooy ak moom yàlla wala jigéen boo xam ne góor fexe na moom mooy ak yàlla mu bañ loolu te fekk ragal yàlla moom moo tax kooku tamit yow man xiyam yàlla dafay daf koy daal di koy keral ak tamit ñi ñaar ñi nga xamante ne dañoo bëggante te yàlla tax ma ñëw gis sam papa rek xool ko gis ne ku bëgg diine la ma ne ko bëgg naa la ngir diine yàlla bi ñu bëggante ñun ñaar bëggante boobu noonu ñun ñaar ñooñu cofeel boobu ñu am yàlla daf ñuy keral li nga xam ne mooy yowmal xiyam waaye tey ñun ñooy noonante ba ci biir jàkka yi ñun ñooy ñooy ñooy xeex ci biir jàkka yi ñun tey ñun ñooy demante tribunal ci jàkka yi ñun jullit ñi ñooy bañante ngir suñu intérêt personnel fan lañ ko teg jullit dëgg ak moroomam dañu war a bëggante te yàlla tax bëggante boobu mooy tax ñu mën a am àjjana ndax yéen saa sam ne na kenn ci yéen du gëm te dugg àjjana loolu dafa gëm yàlla waaye kenn ci yéen du gëm yàlla loolu dafa bëggante li nga xamante ne li mu bëggal boppam wala bëggal li nga xam ne moom mooy moroom jullitam kon nañu bëggante te yàlla tax bu ñuy bàyyente tamit nañu bàyyente te yàlla tax mooy nit ki mooy katu yàlla la dafa mën a mooy yàlla ñëw naa waar ko yedd naa ko def naa ko lu nekk moom munta bàyyi mooy yàlla def na ko ñàkk jom te mënumaa ànd ak moom ma ne kii de ba gàddaay naa ko bàyyi naa ko te yàlla tax parce que lan moo tax mooy ñun ñaar suñuy heure àndu kon jullit nii lay jàppee dafay jàpp te yàlla tax waaye tam buy bàyyi tamit dafay bàyyi te yàlla tax ak ki nga xamante ne dafa toog ci ruqam moo xam néegam moo xam ci jàkka ji moom dong moo xam mais fi mu nekk moom kese kese moo fa nekk muy xalaat mbiru yàlla di xalaat yàlla nu mu ko bindee ni ko yàlla sàkkee muy xalaat ci aaya yàlla yi alquran moo xam dara toog sax di jàng alquran wala muy xalaat ci yàlla nu muy doxalee ay mbiram mu jékki-jékki commencé di tuur rongañ di jooy te léegi nga gis koo xam ne mu ngi jàng alquran fi mu toog moom kese muy jàng alquran alquran bi dem ba tooyal xolam mu jooy jooy yooyu nga xam ne moom jooy na ko moom mooy tax dafay bokk ci li nga xamante ne moom mooy ñu yàlla di keral yow mal xiyam kon juróom-ñaar lañu yoo xamante ne nañ ci bàyyi xel tey jii mbir yooyu di tax ñuy am ker boobu noonu bu ñu tàmbalee ci juge bi ba ci fu mujj bi ku ci xalaat rek dina xool xam ne tumuranke na bu ñu nee tumuranke na nag mooy boo jëlee mil bu nekk kenn moo ko ciy def loolu mooy tumuranke gi boo jëlee mil bu nekk kenn moo ko ciy def boo demee ci juge yi kenn moo ko ciy def mil mil mil boo jël wala cent boo jël boo ñëwee itam ci ndaw ñi boo ñëwee itam ci mooy yàlla gi boo ñëwee itam ci li nga xamante ne mooy alxuraan bi ngay jàng wala toog léeg-léeg sax di fàttaliku yàlla di fàttaliku dee yooyu yëpp néew loo xam ne loolu néew la ci doomu aadama yi ñu di ko def kon juróom ñaara ngi nii yoo xamante ne buñ ci góorgóorloo yow man xam du naaj bi tàng tàng tàng dañ ñuy keral ñu commencé dund àjjana balaa heure dugg àjjana du jot kon yow man xiyaama ngi noonu ñaari mbir moom moo fa am imaa nit ki texe wala imaa nit ki texe di yàlla àjjana la la yor safara la yor te nit ki dañ koy fay li nga xam ne mooy ay jëfam imaa dañ koy fay lu baax muy àjjana wala ñu fay ko li nga xamante ne moom mooy sawara sawara nag nekk na dëkkuwaay boo xam ne dëkkuwaay bu metti la waaye dëkkuwaay bu naqari la dëkkuwaay la boo xamante ne nii ndox bi nga fay naan rek boo koy naan day day ñori deru deru kanam àjjana nekk dëkkuwaay boo xamante ne amul feebar amul amul joxe dépense amul sonn amul amul dara loo xalaat rek ne bëgg naa ko rek da ngay gis mu ñëw sa kanam yàlla booyal ak ay soxna yoo xamante ne seen wee buñ ko daggoon sànni ko ci àdduna bu lëndëm dafay leer nañ ndax rafetaay yàlla jox la li nga xamante ne moom mooy mooy royaume nga jiite sa àjjana te ki gën a tuuti li mu am àjjana boo tàlloon juróom-ñaari asamaan tàllal juróom-ñaari suuf yi moom àjjanaam moom mu ëpp li nga xam ne mooy surface boobu noonu mooy ki gën a tuuti la lu mu am kon yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ñoo ñu dugg àjjana yàlla boole ñoog àjjana yi nga xam ne mooy àjjana yi gën a kawe ñu dem sax ba bokk ak àjjana li nga xamante ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne mooy suhadaa yi ak ñi nga xamante ne moom ñooy ñu baax ni loolu yomb na yàlla yàlla ñu ko yàlla defaral nañu gën a góorgóorlu ci suñu diine ñu góorgóorlu ci alxuraan bii nga xamante ne moom mooy waxu yàlla nekk suñu loi luñ ci mën suñu kéemtalaay kàttan nañ ko def yowmal xiyaam alxuraan day taxaw plaideel jaam bi ne yàlla kii kat sama ja sa jaam bii de man maa so moo sonnoon ci man dama jàng guddeeg bëccëg di fexe xam sama contenu waaye dama jëfe kon yàlla dugal ko àjjana yàlla dafay nangu plaidation plaidé boobu alxuraan defal li nga xam ne mooy jaam bi kon nañ ci sonn bu baax a baax alxuraan du yam ak ñun ba biir àjjana sax alxuraan daf ñu woy fekk yàlla naa ñu iqra warkaa jàng leen ngeen yéeg kama kunta turattilu fi dunya comme ni ngeen doon jàngee ci àdduna nit ki fu mu yem te fi la mu mokkaloon ci alxuraan foofu lay àjjanaam di yem kon ki gën a mokkal alxuraan kooku mooy gën di kawe li nga xam ne mooy àjjana nit ki dina ñëw àjjana am ay jëfam yu baax raw moroomam mais moroom bi mu raw moo ko moo ko rawoon ci mokkal alxuraan dañ leen naan jàng leen ngeen yéeg moom bu jàngee tuuti yem foofu fa la am mais da ngay gis ki day jàng di yéeg di yéeg di yéeg di yéeg ba romb ko te pourtant nekkul woon koo xamante ne ko amoon la doon jëf lu baax mais lu mu ko rawee mooy mokkal gi mu mokkaloon alxuraan kon nañu fexe jàng du wees ni ko sëñ Tuubaa waxee dafa nekk ci berceau ba keroog ngay dem ci bàmmeel nit ki xam jàng xam-xam liir buy nàmp nekk ci berceau ba keroog ngay ñeganaayoo sa bàmmeel diggante boobu da nga ko war a jàng amul xale amul mag amul ndaw tey boo demee Inde Indonésie lu tax musulman yi ëpp fa lu tax borom xam-xam yi ëpp fa mais da ngay gis benn paa boo xam ne màggat na lool karaw gi weex sikkim baa ngi weex mu jël maxtoom takk ko boo ubbi woon biir maxtu bi loo fay fekk ay téere xam-xam nga fay fekk nga gis ko benn xale bu toog di def waxtaan ci benn thème boo xam ne moom def na ko boo moytul cent fois mais du jug dem du ne lii bàyyi ma bàyyi ko xale yi moom màgget bi noonu ko gisee mu toog si jotaay bi di déglu thème boobu nga xam ne def na ko cent fois ba maîtriser ko kon mag baax na xale baax na jàng du wees nañu góorgóorlu lu ñu jàng suñu diine suñu diine mënuñu koo xam lu dul bu ñu ñu jaar ci alquran kon lu ñu mën ci alquran nañ ko def yàlla nañu yàlla may dégg ak topp rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfirna wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الاحياء والاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله